man j'ai regardé euh, la personne psychologiquement maanaam kii lan mo nek ci ginaaw xelam maa ngi ko en 2011 ñom taxula yi man je faisais des campagnes pour gars yi bañ voter Macky Sall parce que xamone na ci lan la Sénégalais yi bëgg dugg la personne dama xamné nit ki nga xam dafa am ego bu yéeme nit ki nga xam dans sa tête victime la Macky est une victime Macky ñun même quand on parle de ce pays là dafa japp ñu koy tooñ maanaam dëkk bi dafa mel ni moomeelab la moom day jàpp ni kii dafa maa contre daf may sànni xeer daf maa bañ alors que non ñun bañ ñu ko ñun Macky Sall mënuñu séq ak moom relation bañante ndax yàlla daf ko jox nguur nguur yàllaa koy joxe te ku mu ko jox dañ ko war a nangu waaye nag suñ la bàyyeeg sa bopp nguur dafa diis ndax nguur attribut yàlla al mulk mbiru yàlla yàlla mooy al malik nguur kuñ ko bàyyeeg boppam dina ko dofloo dina ko sànq dina ko dugal ci guuta ndax yàlla kese mooy buur bu wér bi xam ne moo buur donc ñi xam ne waruñu woon bàyyi Macky Sall avec lui-même te waruñu woon bàyyi Macky Sall avec les faucons du pouvoir ndax euh, gis ngeen réew mi dafa am ay nit yi nga xam ne depuis régime Abdou Diouf ils gravitent toujours au pouvoir ils sont toujours avec le président tey tey tey tey tey bu Bassirou Diomaye Faye bu nekk fee ci kaso ba nekkee président ils vont essayer de l'approcher de le connaître de se lier d'amitié ak moom pour continuer bénéficier seen ay teranga ñi ñii nag président bu sànk ñoo la sànk ndax ils veulent garantir seen ay intérêt ils tiennent en otage le président en réalité donc man jamono boobu may wax gars yi leen yéen yéen da naan góor gi na dem rek waaye waaye booy bi parce que man jamono booy bi laa xoon wooyee ma leen booy bi su ne il fera des choses très graves dans ce pays ndax kii daf ñoo woon boppam avant muy laaj nguur gi mm-hmm. soo xoolee aujourd'hui ñëpp dañoo commencé nangu ni Macky ne respecte pas la loi maanaam c'est quelqu'un bi xam c'est pas un légaliste Macky faalewul yoon ñu y ay ay bon sens ay non Macky dina yërëm nangam Macky faalewul yoon te loolu il l'a prouvé au Sénégalais avant muy jël nguur gi Macky dem na voté xam ni la loi dafa wax ne da nga war andi nangam ak nangam pour dugg voter, mu je m'en fous damay voter par force te kii il n'avait pas les pleins pouvoirs Qui ministre loolu waaw ki nga ministre la tu piétines la loi waaye ni faalewu ma yoon bu la joxee les pleins pouvoirs en tant que président lan ngay defi ji donc Macky wax dëgg yàlla man xaw ma ñu mu bett waaye man bettu euh, ci li mu nekk nii nag cay caaxaan képp la dama koy ñaan Macky génnal ci li nga ne ndax Macky li mu nekk nii tabaxul kër te jëmeewul Sénégal kanam chaque fois damay fàttali ne le président en dehors d'un état bu ñu ko dénk en dehors de territoire bu ñu ko dénk en dehors de d'une des richesses ak. Euh, euh, euh may waxe sax moy euh, jëmukaayu manam yoonu dëkk bi xam ne ko dégg moko ko tracé mais le président mo rek garantir la stabilité du pays mais suñu dëkk bi ñun ñep d'accord accord nañ ce pays là il est divisé les gens ne se parlent plus dañuy jaar sax légui adversité ak animosité nous sommes adversaires c'est vrai ñun Macky anduñu ko mom ci lu muy doxalee dëkk bi anduñu ko mom ci fi mu nekk di yóbbu dëkk bi mais du suñu ennemi et ay nitam il considère comme ennemi qui est nga xam ne Macky et lii dramatique Macky Sall il la def Sénégal ci 12 ans de règne. Dans damay dégg ci télé yi ñëpp di wax naan Macky Sall son bilan matériel ne mënu ko euh, lam-laamee bilan immatériel il bi waaw un faire am problème les droits ont régressé nangam mais nous, si s'il y a un mot qui résume l'action du président Macky Sall ci bilan matériel dans ce pays là ce mot là c'est l'échec Macky a échoué qui a échoué sur toutes les politiques publiques C'est lui, Missal monsieur, peut-être mon naa wax ñaar la ñetti Macky dafa au pouvoir en 2012 avec un plan économique bien ramé. bon man tout le monde sait sax plan parce qu'à à l'époque ba mu koy lire 26 pages je ne sais pas 26 ou 24 pages a yokkute. yoonu yokkute bi c'est un chapelet de souhaits qu'on a agencé aligné Donc on xool ne lii c'est du toc mais la chance qu'il a moi, askan bi du voter ci ay programme askan bi day voter ci ay affinité suñu askan malheureusement on sait pas voter nit fay voter parce que ki kat ah ki da yaru de wala ki kat ah ño bokk sëriñ wala ki ño bokk dëkk wala ki day wax deug yalla ah, ah sama sama sama tel xarit ki mom xarit la ñoo ànd maanaam yii mooy euh, élément yu sénégalais majoritairement di voté man len li de c'est pas un programme li euh, Macky mënul yobu dëkk bi ci li ça je m'étais pas trompé deux ans après Macky Boum, il constate que euh, la croissance du Sénégal est erratique euh, elle était atone et que y a une urgence sociale il faut que de plan boobu changer cap Madame Macky il constate son échec deux ans après être euh, venu au pouvoir en créant prenant un autre plan bi nga plan bi nag ngay xam ne Macky le la C'est le PSE PSE du xalaatu Macky Sall chaque fois que gars peut-être nous ils n'ont pas la culture économique mais émergence depuis les années 90 le TOUBABI a fait un dossier tuddee l'Afrique Afrique émergente ils ont décliné trois axes les axes pays africains ils ont théorisé les responsables de ce retard là de de nos pays ils ont pillé les ressources dans nos pays ils ont encore ils jouent pompiers après être les pyromanes nous une émergence souhaitée. il doit y avoir nangam ak nangam il y a les préalables de l'émergence Nous créons le concept d'émergence qui est un concept creux en économie ça amul solo parce que l'émergence c'est comment préparer un pays pour être apte à pouvoir avancer et, se développer donc nous nous forcer pays pays. Maki, nous bëri lañ ko forcer Nous si une Maki amul amul personnalité Nous nit le bi nga xam ne euh, luñ ko pas ay kilifaam femmes, ñu ko digal da koy def mu jël PSE boobu andi ko Sénégal may fàttali ni sur 54 pays wala 55 pays sur le continent africain 37 yëpp am plan d'émergence ñu bëri ñoo yaakaar plan Sénégal émergent c'est un génie de Macky Sall c'est pas vrai le plan Gabon émergent moo jiitu plan Sénégal émergent plan Cameroun émergent plan Centrafrique émergente plan Côte d'Ivoire émergent même Guinée am plan plan Guinée émergent tous les anciennes colonies ils sont dans la dépendance avec l'Occident Force un plan d'émergence avec des marchés juteux des multinationales un plan basé sur l'attraction d'idées sur euh, préparation le marché pour gars yi gens puissent marché sur le bradage des ressources des soufis, Euh, ressources yi licences licence d'exploration Madame, Li, y a mooy émergence Il lii ñun Nous xam ni donc le plan Sénégal émergent Mon premier échec que j'ai constaté en 2014 Je sais que ce dara je change de cap ce sont ces mots il dit je change de cap en instaurant le plan émergent ironie de l'histoire euh, plan émergent si koy retenir c'était en deux jours en février 2014 c'était le 24 et le 25 février 2014 L'histoire, histoire chaque fois est le 25 février 2014 si le ñu Amadou Ba parce que nous représenté le Sénégal yóbbu Sénégal sur l'autel du grand capital et de l'impérialisme occidental que fa Sénégal reddi ko jox ko tubaab bi. le 25 euh, février Le 24 25 février ñu avons ñëwaat def élection Nous avons ni seen candidat wax dëgg yàlla amul chance su gagné mais lolu xamna ni ni euh, dañ ci ñew ci kanam. Macky kon constaté na échec politique muy benn yamu ci. Maki, il décrit plan Sénégal émergent la un Sénégal émergent à l'horizon 2035 euh, un État solidaire dans un État de droit bon solidarité Sénégal mon man un peuple solidaire Macky a su le créer sincèrement euh, pour coup sincère rek na pas su euh, créer les conditions de renforcer la solidarité et la stabilité des Sénégalais muy benn état de droit mom, Macky sax xam naa ne ñemewul wax ni il a renforcé l'état de droit dans ce pays ndax dañoo dellu ginnaaw instant bi yéen ñëpp bu mu leen laajee élection Sénégal kañ la jox leen ma date kenn xamu date lii c'est digne d'un pays bi nga euh, à monarchie constitutionnelle maanaam dëkk la nga xam ne kon la souveraineté n'appartient pas au peuple ndax dans tous les pays sérieux du monde élection yi war am dans ans sax ne date bi kañ la war ne tel at su si tollee tel weer on aura une élection <coughs> constitution Sénégal buñ ko xoolee rek chaque élection xam nañ kañ la war a nekk fii ba normalement fii ba 2100 ndaxte élection yi 5 ans la xam nañ ne dernier dimanche bu weeru février la dans un état sérieux dañuy am lisibilité sur le jeu électoral sur euh, le calendrier républicain actuellement Macky dindiwaatal na loolu Sénégal lii vraiment c'est inquiétant man dama gëm ni Sénégal actuellement ci impasse bu extraordinaire la nekk euh, ñu bari ñu tok seen xel dal ñu tok di am yaakaar nan non dina jël décret non Macky xana doful c'est que ñooñu il ils méconnaissent l'homme dañu xamul nit ki ndax amul limite lepp lu nit japp ni non li dina ko jomb non Macky jombul loolu. c'est que motax tax ma ne même ci liste candidature article les pièces yu gars wara joxé ci élection présidentielle di wax ni nangam ak nangam dañ ko war a man dama gëm ni. examen psychologique approfondi euh, dañ ko war a defal candidat yi daa am si ñoo xam ne du yooyu nit de ay dof dëgg lañ te boo leen joxee nguur ngay xam ne kii dof la ndax euh, quelqu'un de raisonnable de réfléchi am na yoo xam ne du fa ñeme yegg gor sax bu séq ak ay nawleem am na li nga xam ne du ko sañ a def waaye ki nga xam ne amul limite wax dëgg yàlla xamuñ na ko war a mën a woowee état droit bi nag sincèrement euh, foog ñu def fa taxaw seetlu Euh, man damay jël sax exemple ci sama bopp euh, comme que ñu naan tungee du teew ñu nataal man vraiment euh, exemple bu patent mooy man dégg naa ay tapalekat di wax naan gaa yi génn kaso dañoo signé ndax amul ay ay deal boo man Cap Manuel laa jóge prison Cap Manuel laa def 10 mois def un mois rëbës na ko may jàpp rëbës lañ ma njëkk yóbbu ma fàttali circonstance ma jàppee.

nous serons impliqués et ça nous concerne directement jamono Bobu, euh, réclamé je vais appeler à une manifestation pacifique vidéo est YouTube de l'exemple malien nous parle au Mali imam dico, nous avons benn une bi avons askan une assemblée pacifiquement terrain comme terrain parcelle place d'indépendance ñun ñëpp ñu dem fa jël suñu ay mer gàddu suñuy satala kamil, sijaada suñuy kaamil suñuy course ñëpp dem toog foofu euh, stationné fa exiger la démission du président Macky Sall exigence de la démission de manière pacifique si benn dëkk ce n'est pas un délit loolu euh, dans un état sérieux on ne woo pas sax police la di la entendre ma ne ñett yii man lay demandé su ma organisation manifestation boobu primo nañ libérer détenus politiques yi lii laa waxoon sama discours Macky politique yi. secondo nañ def la lumière si xalé xamé dañ leen rey ba légui enquête amul ndax il est inconcevable dans un pays ñuy fat ba paré enquête am na ba ay nit sax gëm ni ku dem manifestation alors que non dem manifestation warul tax nga ku dem manifestation il n'a pas fouté waye ku xol désarmé sans armes, ben, xale bi nga innocent faible nga jël arme yu yoo xam létal yu mëna a nga ne ko xol ko à bout portant ray ko kooku la gay wara waxal. et malheureusement il y a une hypocrisie dans ce pays les gens parlent de xalé yi ñoo war a génn xale yi waruñoo génn dans tous les pays du monde ñu génn est-ce que dans tous les pays du monde ñu ngi ray xalé la la réponse est non donc wax deug yalla man je voulais que que lumière soit faite sur ces soixantaine de morts là euh, yu am ci dëkk bi bon mort yi yokkuwaat na encore. Euh, yalna yalla yeureum len te xalen leen aljana ñetteel bi c'était d'exiger la démission du président Macky Sall ndax Macky Sall nag wax dëgg yàlla dafa bolé ñaar yi xam ne ku ko am euh, malheureusement jiite deuk da ngay nek un danger pour ce pays là muy l'incompétence ak ak ak l'incapacité Macky est incapable il est incompétent wax deug yalla ñaar yi il a démontré ci 12 ans yi xam lu jitté Sénégal donc man ñett yi ma wax euh, sur fond d'une manifestation pacifique man mënu ma comprendre ñi ma ci wo di ma yóbbu dikk dañ may entendre andil ma dagal ma euh vidéo yooyu tégal ma ko ne ma ndax ya wax li ma xol ko ne waaw macha allah lii kay maa ko wax te fi sa mun naa ko fi waxaat te buma ma nako naa mais nous exigeons que ces détenus politiques là sortent des prisons li fuñu taxaw on va l'exiger nous exigeons aussi tamit que lumière soit faite sur ces cas de meurtre ces cas de torture ak lepp li nga Sénégal a signé ay convention ku dem le pacte international sur les droits civils politiques etc. article 6 7 8 9 mais Sénégal a signé dugal ko ci préambule constitution la ne man li gëm nako nako doxal donc ku ne man pas torturer duma def ay traitement dégradant inhumain dévalorisant euh, dévalorisants duma rayaate duma troxalaté mais li ko ko signé da ko respecter. parce que la qualité d'un pays c'est d'honorer ses engagements en réalité soo signé dara nga respecté ko état Sénégal c'est un état voyou il respecte aucun de ses engagements bu vous waxee ak moom sax du ko Vous bu wo ne ko parrainage bi nga am ni baaxul xoolaat ko maki defee ne je m'en fous dañ koy def lu ko neex ndax xam na ne CEDEAO bi c'est un syndicat euh, de président yi xam ne ñun ñëpp ñoo do te ñoo far ay kat kese fa nekk ñun nous rendons toujours la CEDEAO des peuples da bu léegi amugo donc trois yi ma demandé ça doit interroger sax euh, ñun suñu constitutionnalistes parce que est demee États-Unis le peuple bi a xam ne même souveraineté, souveraineté a la possibilité destituer un président bu dañoo jàpp ne kii wàcc na yoon bi wala kii war nañu qui est en train chaque fois gars chaque di ko xool les médias yi di xool muy menacer présidents américains on en France et dans tous les pays nous, ils sont démocratiques le peuple a la possibilité un de de présenter des lois à l'Assemblée ñun sommes Sénégal amuñu ko Que nous la souveraineté appartient au peuple c'est un mensonge dans notre constitution, il y a des mensonges. Nous n'avons pas la souveraineté. Nous nous sommes représentés. Et nous représentons l'Union d'Occident intérêt, beaucoup sur intérêt. Quand les députés vont à l'Assemblée, ils poussent l'élection, ils enquête pour Sénégalais, ben Sénégalais beaucoup. Donc, ils ne nous représentent pas. Ils représentent leur parti. Il y a la démocratie représentative. C'est un danger. Nous nous voulons une démocratie participative le peuple a son mot à dire ku teew kenn waru ko représenté représenté signifie que nit ki dafa fàddu nekk fi nous sommes là donc ñun dañoo war a am sañ-sañ bu ñu bëggee dara ci loi ñu mën a am un nombre de signatures requis yi nga xam ne loolu c'est c'est facilement organisable on sait que par exemple député euh, ñaata ñaata la gars yi amoon je sais pas parrainage ak yëpp 65000 ku ko am ci élection législative di nga am un député au moins donc suñu amoon peut-être 65000 signatures de sénégalais ñu ne ñu kat ah bëgg nañu loi sangam ñu xoolaat ko le war na parce que 65 000 signatures de sénégalais mais c'est un député et quand un député a le droit faire une loi au bureau de l'assemblée le peuple a le droit tam droit de bu loi bu préparer on peut fixer par exemple bon si on a 500 000 signatures de euh, l'ensemble du territoire la loi bi war réexaminée pour retirer ko ces lois sont faites pour nous, pour nous. pour nous, la war ci donc moi, j'ai posé ce débat là ce débat de la démocratie représentative bu xam le débat d'un président il ne doit pas être omnipotent président war nañ ko mën a destituer bu dee wàcc na yoon te Macky wàcc na yoon bu yàgg Macky nekkul sax si yoon bi mu ngi si ñàll gi di wéy donc aujourd'hui euh, su ma gisee même waa assemblée euh, tappalekat yooyu nekk Benno Bokk Yaakaar ak seen mbokk tappalekat yooyu nekk nekk PDS ñeneen ñoom dañuy setal seen candidat Amadou Ba balaa ñu dem élection ba tax ñu perturber chambouler tout le calendrier républicain alors que crise amul si dëkk bi ça me fait rire ñoom balaa ñuy setal Amadou Ba dañuy setal Macky Sall Macky ne fricote qu'avec des délinquants Tabda de le dis-moi qui tu entres je te dirai qui tu es Macky est un délinquant. Il délinquants lañ ay sàcc yu mag Franck Timis est un délinquant notoire connu euh, partout il est poursuivi ça dans beaucoup de pays du monde il y a des plaintes d'une fille, une xamee ñun man bokk naa euh, pour une plainte Franck Timis Franck Timis euh, a une plainte dans presque six juridictions en Angleterre, aux États-Unis, euh, à Singapour, en Roumanie, euh, plein de fouler en France parce que ça tient là. Tant qu'il y a quelqu'un qui a fait le patron, Mais tant qu'il y a souffle au Sénégal, il y a un Bon, il y a un scandale, peut-être, dans les jours à venir, au niveau de la région de saint à Nginch il y a plus de 26 000 hectares, il y a un ça, il y un il l'a acheté à 8 millions de dollars. Le tax souffre beaucoup y aimer. parce que mon veut il veut faire une culture de luzerne. Luzerne, c'est une culture pour faire des pour euh, fourrage. 26 000 hectares, 20 000 hectares le diable de quoi pour luzerne Mais écoutez bien, culture de luzerne c'est destiné à alimenter ou à nourrir ay nag ak ay ay mala yi nga xam ne nekkul Sénégal moom nee na il vise le golfe Persique ak yenn pays arabes yi nga xam ne seen li ñuy yar moom bëgg na leen mu gën a gagné marché dañu leen war a xott waaye ñun an suñu politique de développement en matière agricole en matière euh, élevage te li gën a grave ci loolu mooy culture luzerne luzerne dafa bëgg ndox maanaam dañoo nar a nekk di pomper Lac de guerre ndox pour mën a yor tool boobu li pompée pour reste pour gérer 20 000 hectares yooyu ëpp na deux fois li pompée pomper de guerre di ko andi pour alimenter la région de Dakar je vous laisse imaginer quelle est la quantité d'eau qu'il faut il faut deux fois plus d'eau que pipeline yi nga xam ne ñooy puiser ndox bi de Lac de guerre di andi Dakar pour pour jox ñu ndox li muy andi ci Dakar il faut deux fois ce volume là pour mën a gérer toolu Franck Timis mais Franck Timis n'est pas le seul 30 bis dañ ko takkal avec les décrets 2012 le décret clair doon def ci wax wax ba mais c'est pas le seul Bictogo Adama Bictogo ancien ministre ivoirien ak affaire où tapa les nga xam 13 milliards Sénégal yi il a été poursuivi en France c'est un délinquant Ça, la bu àdduna bi yëpp xam waaye xaritu Makissal Sall Macky Sall jox na ko marché bi nga xam ne marché boobu ADIE def avec moins d'argent. Ni ñu tëb ADIE jox ko Adama Bictogo bi nga xam je vous demande nga dem quels sont ces liens avec Makissal ni jox ko marché boobu retiré ko ko dédommagé ko jox ko 13 milliards xaalis Sénégal kooku il est poursuivi en Europe kooku waa demande de ni saral seen candidat au-delà de Bictogou mais euh, ba ci euh, le ministre ivoirien là euh, Mahmoud je sais pas quoi là même kooku il a été condamné sax moom déjà jàpp nañ ko mais kii xaritu Macky Sall bu Macky jox ay marché fii ci biir réew mi donc ñun Macky xam nañ presque une trentaine de personnes yoo xam ne jox leen ay marché Sénégal sont des personnes yoo peu fréquentables pour la plupart ce sont des drogués niens des délinquants qui ils sont recherchés dans beaucoup de pays ci et ces gens là viennent au Sénégal euh, di fi am ay marchés. te waa Bennoo jéemuñu sala seen candidat bi xam ne ne seen bi ay délinquants les fréquentent. donc il y avait li gënoon jàmp mooy ñu setal Macky ci affaire u ArcelorMittal scandale bu plus de 2500 milliards ñu waroon ko fay Sénégal Macky dafay waxaale ak ñoom baal na leen ko dañ joxe 75 milliards